dara du dul moo leen di may seen émission les sénégalais diaspora partout dans le monde aouzu billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk auditeurs yi ñuy déglu ak bokki téléspectateurs yi ñuy siiwar ci àddina wërngal këpp ci monde entier bépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar waaye balay booba tey ñi ngi ñëwaat tey ci sunu émission immigré bi nga xam ne ñu ngi leen koy amal altine bu nekk tey ñu tolloog numéro 84 ci euh, numéro bi nga xam ne ci lañ toll ci waxtaanee li nga xam ne mooy sunuy jafe-jafe ak sunu nekkin Euh, ñu toll tey ci numéro quatre-vingt-quatrième bi euh, ñoo ngi fas yéene nag ànd ak yéen tey ci thème yu am solo ci émission bi njëkk ci mois de janvier 2021 waaye balaa booba ñu ngi nuyu ni ñu ko baaxoo di defe rek suñu bokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi muy sénégalais diaspora moo xam ñu nekk Europe la Afrique Asie ak euh, fi nga xam ne mooy États-Unis ak Union soviétique ci continent yëpp waaye balay booba ñu ñëw nuyu ñooñu profitoo ci di nuyu ci réew mi nga xam ne fi lañ nekk di àddoo fii ci Toscana ci dëkk bu ñuy wax Piombino waaye di nuyu waa Italie gépp agression yëpp di nuyu waa France agression yëpp di nuyu waa fi nga xamante ni si mooy Espagne agression yëpp di nuyu waa Portugal agression yëpp di nuyu waa Angleterre di nuyu waa Allemagne di nuyu waa Belgique waa waa Suisse waa Suède waa Autriche ak euh, fi nga xamante ne si mooy euh, Danemark ak fi nga xamante ne si it mooy. Euh, pays ba ñu koy wax euh, Hollande euh, muy pays boobu nga xam ne fi la Sénégal yi bari ñoom it ñu ngi foofu di nuyu tamit waa ñi nga xamante ne si ñooy waa Turquie di nuyu it waa Moyen-Orient bépp di nuyu waa Israël di nuyu waa Palestine waaye di nuyu tamit ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci États-Unis d'Amérique tàmbalee ko ci Washington DC Washington Speed New York Los Angeles California Atlanta Columbus. Eh, ak fi nga xam ne mooy Austin Texas ak Dallas Texas Arizona Florida Las Vegas ak di nuyu waa Colorado waa Cincinnati waa Philadelphie Alaska ak eh, Hawaii ak eh, Delaware ak Louisville ñi ngi nuyu ñooñu ñëpp waaye di ñëw di nuyu waa Amérique du Sud di nuyu waa Venezuela ak waa Guyana ak waa Suriname ak Guyane française ak Colombie ak Équateur ak fi nga xam ne ñooy waa Pérou ak waa Brésil ak waa Chili ak ñi nga xam ne ñooy waa Paraguay ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax waa Argentina ak waa Uruguay ñu ngi nuyu ñooñu ñëpp di nuyu it monde arabe di nuyu Arabie Saoudite waa Syria waa Iran waa Irak waa Égypte waa Libye eh, Libya ak waa Afghanistan waa Pakistan waa India waa Yemen ak waa Algérie ak waa Maroc ak waa Tunisie ak waa Mauritanie ak waa Liban di nuyu tamit waa sapon di nuyu ñi nga xamante ne si ñoo nekk Chine ak Corée du Nord ak Corée du Sud di nuyu waa Union soviétique kon bokk yi première partie baa kon su ko defee ñu daal di dem rek ci li nga xam ne mooy thème de euh, immigré bi nga xamante ne si mooy numéro quatre-vingt-quatrième euh, numéro su ko defee rek ñu daal ci sóobu ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene koo jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin kon bokk yi gannaaw ba nga xamee ne def nañ présentation boobu nuyoo boobu ñu ñëw nag tey ci immigré ci premier numéro ci mois de janvier 2021 fas yéene ko ànd ak yéen di àddoo fii ci Italie xam ngeen ne nag euh, moodu moodu tey ci lañ bëgg a sulañu lu bari ci pour nit ñi bàyyi ko xel xam na ay nit lañ yu yàlla waajal ay nit ñu yàlla préparé ay nit ñu yàlla dimbali ay nit yoo xamee ne que ni ku leen moytuwul mën nga cee ala ko boo narul ci ñoom jàmm ku leen fexelit yàlla dana dal ci sa kaw ndax loo xam ne si panda de saint tey boo ñëwee mën nga cee génnee ku fi def 30 ans mën ngaa génnee sax ku fi def 40 ans ba ki fi mujj ñëw sax boo ko laajee minimum def na fi daanaka 12 ans te seen yitte yépp mooy lu satisfaire seen famille ci wàllug social te ko xam social li ci yàlla wax ci génnee sarax génnee asaka ak dimbalante ci wàllu solidarité loolu gis nañ ne moodu moodu yi suy nañ ci rôle bu am importance moo tax nag képp ku ci duggit rafetal njort ci ne ëllëg sa ëllëg mën naa baax comme nii nga xamante ne sii ni lañ ko yaakaare na nga rafet njort it ci ña nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xeex yi nga xam ne xeex na ko te lislaam taxoon ko jóg ndax ñi doon xeexkat kat xeexuñu woon ngir am doole dañu doon xeex ngir défendre l'islam xeex ngir défendre l'islam ci intérêt l'islam kemtalaay kattan ñu teg ko ci ndigal loolu position bañ taxawee mag position bii nga xam ne ci la moodu moodu yi taxaw mën naa ne benn la te ñooñe lépp loo xam ne si yëkkate nga kàddu teg ko ca ñooñe kenn mu ñi waroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàppal ne moodu moodu yit lépp lu ci waay wax na yàlla di fayee ca lee ni la lay fayee ci lii ndax dikkuñu ngir di taxawaalu dañoo dikk ngir di liggéey ku ñëw ci réew mi nag l'âge de vingt dem fi tey ba dugg sa 63 ans xam nga ne li nga fi def bari na te taxul nga tekki sa ndigg mukk waxtu jot yaa ngi koy takkaat xoolooloo am xoolooloo amul lay sa bëgg di sa obse mooy na fexe ba li yàlla wax ci leel miskin li yàlla wax ci dimbali li yàlla wax ci taxawu sa famille lépp yaa ngi ciy xëy di ca gont muy loo xam ne nii nag li ci composé wu dafa bari ndax boo xoolee tey jii lu mel ne tarbiya nga xam ne da ngay am sa doom yóbbu ko ci daara tarbiya mu dem laxasaayu yi tarbiya ñëpp xam nañ ne ni ko sëñ Tuubaa waxee dana yëkkati nit jàllale ko foo xam ne si tey bu taxawoon jaaran ko ci beneen secteur tey du mën a am yool boobu ak yiwoowu ak ngëneel yooyu am ci tarbiya tey jii transformé nañ ko indi ko ci moodu moodu moodu moodu yi tarbiya dëgg moo koy def ndax da ngay gis koo xam ne fii tey bu demoon senegal këram lalam bu yaatu lay tëdd lom bëgg moo fay am waaye bu xasee génn ba takk derog soldaar gi sol tëni bi bu dikkee lal bu xat lay tëdd buy lekk ci pot bu ndaw lay lay lekk buy lekk day bokk dégg nga te li ëpp ci ay activité am ca bitti la koy def ñii ngi dem ci jaay mi di rey seen bopp fu dégg marché dem ñii ngi ambila ñii ngi ci diitaay yi ñii ngi ci tool yi catastrophe bu nekk ña nga ca te koo ci laajoon tey lan moo tax ngay nekk ci lii nu ma mën a fexee ba dimbali sama famille famille boobu yëmuñu ci ñoom dong ndax dañuy jël famille bi yëpp en charge bu ñu waxee famille mooy ñan mooy say soxna mooy say ndey mooy sa baay mooy say frère mooy say sœur mooy say sax sa beau mooy say wasin ñu ñëpp benn moodu moodu day nekk fii de satisfaire ñooñu ñëpp kon wàllu social li ñu ci def képp ku leen di di def morom wala nga leen di def nawle wala nga leen di xas wala nga leen di saaga wala nga leen di tilimal loola lépp suñ borom dana kolbati waat képp ko ci seen kaw. bare na ñu ñuy dëkk ci ak ndóol la leen ko teg mooy moodu moodu yi ñu def nawle lu bon luñ yëkkati xëpp leen te lu ñu bëgg woo leen lu bon lu luñ buub xëpp leen te lu luñ bëgg woo leen te ku tële ku ne ñu def la keesu poubelle luñ xaaxtandi ko sànn ca luñ dem kër sànn ca luñ tur ndox dem sànn ca waasetum jën muñ jot sànni ca loolu yaakaar naa mérité wuñ ko waaye nag nit ku nekk la nga am nga mën a maye ñi xam secteur moodu moodu dëgg ndax bu njëkk bi mu xewagul dangay gis ku nekk ci àll ba di dañ dañi di sonn yor sa menn mbaam wala nga yor sa wenn fas ña am barke sax am seen peri nag di bay te la mbay may metti metti ñetti weer lay diire te la nga cay am daanaka du doon dara jafe-jafe yooyu nag moodu moodu yi ñoo ko fi teggi fexe nañ ba jëlaleen ca loola andi leen ci beneen mode de vie boo xam ne danañ ci mën a jaamu yàlla tabaxal leen kër gu baax defal leen ko na la ca war a nekk lépp defal leen ci climatiseur nga defal leen ci ventilateur saxalal leen dépasse saxalal leen ordonnance saxalal leen seen soxlay bopp ci bépp fànn moodu moodu bi nekk fii te loola la ko koy may mooy fajar teel lay xëy cinq heures dana ko fekk mu génn kër gi nekk ca fabrique ba di liggéey ba midi jot mu pause su wàccee su posé 30 minutes wala pause une de temps dem duggaat su wàccee 6 heures la wala wala cinq heures la wala six heures te la muy am ay ati at la ko def nekk ci benn fabrique danse yëpp mu yanu ko ngir lan ngir dox sa digganteeg loolo di la ci dundal di la ci faj di ci faj say soxla kooka képp ku koy sóoro wala ngay jéem a dal ci kawam billaahi wallahi taalaahi xamoo fa ngay teg sa tànk kon li ma leen di yëgal nañ bàyyi xel ne moodu moodu yi taxawaay ba saxaba yi taxawoon moom lañ taxawal te lii firnde ji nag mooy ñi ci sóobu am na si ñooñ ci lañ soobu ci yàggaay ba ci lañ takk jabar ci lañ amee doom ci lañ am sax ay sët ci lañ jël sax seeni doom ñu dikk fii aw leen te diir bi nuy nekk fii ku jóg ci ñoom ngay jëm dem fekk leen boo dikkee ñoo lay gàttandu ñoo lay ñëw jël si ci gaar ba andi la sa kër dugal leen ci seenum néeg ëppal luñ la bis boo fay def ak boo fa dul def dem jëndal la la gën a baax jox la ngay lekk di naan boo paree mu yóbbu war la fa nga bëgg a dem jox teg sa loxo lu diis nga dem loo xam ne si yow da nga ci mën a faje say soxla kooku ku ko yàpp da ngaa xamul fooy teg sa tànk koo xamante ne si bari na jàkka yu taxaw yooyu moodu moodu yee ko taxawal bari na hôpitaux ak dispensaire yoo xam ne si moodu moodu yee ko taxawal àgg nañ sax di dugg ci biir réew mi lu fi baax ci wàllum paj dañuy dajaloo booloo dem lijjanti ko teg ko ci ay conteneur dem yóbbu ko moo xam lu jëm ci wàllu ambulance moo xam lu jëm ci wàllu garab moo xam lu jëm ci wàlli lal moo xam lu jëm moo xam moo xam moo xam lu bari lu nekk moodu moodu yi def nañ ko budul benn tu ñaar moodu moodu yi dañuy dañuy dañuy tabax seen tabax dugal ci seeni i yor seen i mag ñu yor seen i jabar yor seen i rakk ñu yor seen i jabar ñoo leen di ngénteel ñoo leen di takkal jabar ñooy wut luñ teg seen loxo te dara waru leen ca kër ga te kenn ko yor kenn koy def kooku la gënoon def ko ab sëriñ jébbalu ci moom te xam ne kat fa nga waroon a féete moo la fa féeteel kenn ku nekk nag la nga waroon a def boo gisee ku la ko defal jàppal ne kookaa la gën te saydul xaw mi xaadimuhum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te moodu moodu bi yemul ci waa këram yooyu dana am soxla surprise yooyu day tëdd ba guddi une heure et demi une ñu wokk kenn koo xam ne si jotewut ak moom dara waaye am ci moom yaakaar te du tas yaakaar ne ko boo gëwul kat musiba am dépasse bi dafa jeex na te tey dara nekku ci sama borom kër bi tey ji mi ngi ni nangam nangam mu laaj la carte dante te xëy daal dem verser union ba bu ko amul it dana jéem a dem fexe ba génne ko ci compte banque am dikk yónnee la ko nga daal di jël ne fagiim doo ko wone ko jërëjëf doo ko wone ko def dara waaye la nga koy daal di def rek dangay jàpp ne mbaam la moo xam ne si war nga ko sëf war nga ko wax dara feeg soxla wootoo wala nga numéro yam la jox am problème duutoo ko woowaat mukk ne ko jërëjëf te woo nga ko fi une heure une ci guddi moodu moodu ngay toog fii gis koo xam ne si xelam day nekk ci dara rek kooka daan ne naa na na naa woo euh, diw sàngam man ngeen a bañ jotee dara wala ngeen jotee dara damaa bëgg téléphone sàngam sama téléphone ba dañ ko sàcc damaa bëgg dugg ci nangam mu daal di dem seet fu promotion gën a yombee mu dem jënd téléphone bu cher boo xam ne moom yoru ko joxu ko soxnaam dem yónnee la ko Moodu Moodu mooy dem buy di dem fii Sénégal lu baax lu mu gis ne lii de baax na senegal àgg nañ ci sax yëre yi nga xam ne tubaab yi dañ koy mayee fóot ko ba mu set te bu ñu la koy jox xëy na saboté la ak jàpp na yuroo dara ñoo tax waaye yow boo ko jëlee ba indi sa kër ba tàllal ko da nga lii de baax na ci diw lii baax na ci diw moo xam ay dàll moo xam ay tubay moo xam ay mbubb moo xam ay mbaxana moo xam ay drop moo xam ay napp moo xam lu ma doon ay kudd ay palaat lenn lu nekk may nañ ko fii mootu mootu mu ñëw jël ko ne lii kat baax na ci Sénégal dugal ko ci conteneur fay ko xaalis bu seer dem yóbbu ko bu àggee tasaare ko maye ko te loolee gis nga ne bu ñu koy jënd ci marché ba xaalis bu bari lay doon te xaalis ba nga ko doon a jënd moodu moodu bi sax da ko ngay gis muy mu yor otom fanaan si nit am ab malaat ci kër gi moo xam ko jabaram di accouché moo xam ko jabaram am malaate moo xam ko jëkkëram am am am jabet moo xam ko jëkkër jëkkëram am tension wala doomam wala ndeyam wala baayam romb buntu kër yépp xel xalatul mu dem di fa fëgg kenn daal ne doom mi diw ji di ñëw na wala jëkkëri diw ji dikk na daal di ñëw fëgg bunt bi ñu ne kokkan la mu ne mën a diw sama jabar wala sama jëkkër wala sama doom nangam ak nangam mu daal di génn daal taal oto bi moo xam une heure la wala deux heures la daal ñëw sëf la yóbbu la boo àggee mooy dagg ticket wër ak yow hôpital yi ba nga am place mu jëla la laal taalaatum otom dikkat fajar teel nga àndaat ak moom dem xoole ko boole ko bu demee bu nekk ñu mu fa dajal ñu yor ay ordonnance mu dana ci bari ñoo xam si dañ leen ko daggal xol boobu moodu moodu doo nga ko am kooku kuy dal ci kawam da nga xamul fi ngay teg sa tànk moodu moodu mooy nekk ci réew mi fan fanweeri at te kër gu baax sax du ko mën a am du yéefu sam de du yéefu sam de daw soxlay nit ñi rek te bëggul waa këram di ñee kenn waaye ñi ko yaakaar bëggul tax seen yaakaar moodu moodu boo xoolee tey jii suñu dëkk bee di Touba waxoon naa ko danaa ko waxaat la fa baax lépp moodu moodu yee ko def ndax luñ fa war a taxawal moodu moodu yi lañ ciy njëkk a nañ wax moodu moodu yi su ko defee immigré yi fu ñu mën di nekk di ay taalibe sëñ Tuubaa bala nga am jàmm la nga bëgg da ko caa def te loolu sëñ Baara wax na ko fi nee na li fi baax lépp taalibe yi koy def waaye taalibe yi liñ ciy def def def def ñu nekk bitim réew ñoo ci ëpp doole daayira sàngam jébbali na nangam daayira Europe daayira États-Unis daayira Turquie daayira nangam yooyu la ñuy lim bu ñu ko dajalee muy millions yu dul jeex ci la ñuy tabax jàkka yi ci la ñuy tabax université yi ci la ñuy def lépp kon moodu moodu yooyu ku leen di yàpp da nga leen a xamul Moodu Moodu moo nangu loo xam ne si mbindeef moo ko waxoon ci àddina ba yóbbu ko ci université yi gën a kawe duñ ko mën a gëm loola lan la mooy mbirum suñ borom rek a tax yow nit ay nekk ci Sénégal sonn doonub sëfoor wala muy doon ab tailleur wala mooy lan ne la damaa soxla machine wala damaa soxla oto nga jëndal ko ab oto dépassé ci lu mat 3 millions wala 4 millions jox ko ko ne ko dee ci def say soxla mu jàppale mbaam fàqu yat fas yéene seet feneen beneen jamar bu mu ko war a mën a dóoraat bu pënu ba peeree mun a naa la wal sama pënu bi daa peer bu huile ba manqué mu walal sama huile bi daa manqué bu batterie ba amee problème mu walal sama batterie ba bu signal ba tojee mun na la nangam bu embrayage ba yàqoo mun na la bu disque ba yàqoo mun a la nangam te day daw di def ci boppam kat te yaa ko ko jëndal yaa ko ko assurance la waaye entretien ba yaa ko ko yoral moodu moodu ñaata nit a ko xëy xëy woo fii ne ko man kat dañ ma fee may soxna te ëmma lu ma ca def mu dem ci Western Union ba dugalal la foofu xaalis nga dem faj say soxla daal di koy wan gannaaw fii ak soxla wootoo ko doo ko doo ko def te gis nañ ne luñ buub xëpp leen lu bon lu nit wax daaneel ko ci moodu moodu ñiy yor tele ak rajo sax émission yi ñu fa jagleel immigré yi xastaate rek ak wax lu bon ak bitteur ñi seen soxla di leen traité mal di leen jiiñ sida di leen wax wax ju bon dégg nga lu bon lu nañu ne moodu moodu yi ba ba ci coronavirus bi moodu moodu yëpp ñëpp mën nañ koo seere ñoo xam ne si dañuy def seen i vidéo ne ci mbedd yi te ñi leen di filmer it di ko dugal ci internet bi jubluwuñ ci lu dul di leen xas moodu moodu bu fanaan si mu mel ne dañ ne ab xaj fanaan si na ci kër gi wala bukki fanaan si na ci kër gi ñu jéebaane la boole di leen daggal ay saagay ndey loolu man gis naa ko ak naan dañoo defee woon na ñoom doo nga fi def nangam loolu mooy toog ci kaw cara garab di ko gor ndekete yow kii li nga koy toog di ko xool di ubbi sa bët bi di ko di sa soxla mu koy faj lépp sa xol bi maanaam baaxul ci moom day pétagas boo sañoon tey jii kii mu faatu te fii da ngay gis ñu nekk fi ba daanu fi am na ñooñ fi def fanweer at ba xëy faatu ci kooka dara du ak payam lu dul àjjana direct lay jëm ndax sociale yii ma la wax yépp loxo mi ngi dugg ci biir te yëmalewu ko ca këram yëmalewu ko ci baayam ma nga ca daayira ya ma nga ca social ya ma nga ca association ya ma nga ca ndimbal ya ma nga ca lépp te yàqalu ko loyaas yi muy joxe fii yàqalu koy dépassam yàqalu ko otom yi muy war fii yàqalu ko lennam kon xam ngeen kon ka koy may loola te mi ngi génne lii te mënoo koo raw te defoo loola xam nga ne kooku kon moo la gën bari na ci commerçant yooyu ñi ngee ki mais duñ ko jariñoo bu nu demee ba nga xam ne dem nañ ba jàpp ne jariñoo ko ñoo fi des rek yàlla xëy jële leen fi ñaata commerçant ñoo fi xëy wàcc liggéey yor alal jurul jeex te li moodu moodu yi di def ci biir Sénégal duñ ko def moodu moodu moo yëg ci oto moo xam destination bu mën a doon paasaale ña ca biir oto oto ba ñëpp moo yëg ci saretu fukk fukk ñaar fukk ñaar fukk ña ca nekk ñëpp moodu moodu la nit di dox di dajeeg ci moom mbedd mi dong am ci moom yaakaar xar ko ne sama doom damaa bëgg ku ma dimbali ci nangam mu làmb lam am jox la koo yelwaanu ñaar fukk mu génne 1000 francs jox la loolu xam nañ ko ba jumaa jii ñuy dem sax muy jumaay Touba boo solee mbu mu rafet dong ñu jàpp ne moodu moodu ga dañ lay kar ñëpp di la kar te am ci yow yaakaar te seen yaakaar du tas ngay làmb di séddale di séddale te fooy séddale gis nit ñeneen ñi di daw di ñëw koo xam ne sii nag maanaam kenn dox koo joxe addiya kenn daqu koo def ci wàllu social kenn daqu koo dimbali nit kenn daqu koo faj aajo yi nit kooku képp ku koy tere te mal da nga xamul fi ngay teg sa tànk kon yàlla daf noo ubbil buntu immigré ngir yombalal na sunu àjjana ëllëg te ñu ngi ko booleeg jaamu yàlla Modou Modou ngay gis bu ñëwee première voyage am tëdd fii juróom-benn at juróom-benn at du juróom-benn fan du juróom benni bis juróom-benn at yoo xam ne si da ngay xëy di ko galeeru difficulté bu ne dana la traverse nga bàyyi mu jàll ngir lan ngir bëgg na rek ne sama njaboot gi laa bëgg a xettali maa bëgg a dimbali samay waajur bëgg a dimbali ñëpp te ñi nekk ci famille bi ñëpp xooloo ci na kii sama soxna la wala sama doom la ñëpp ngay satisfaire booy dem jël walis bi duy koo ko yëree ba mu fees del jënd lu baax lu nekk boo demee daal di sàmm ci kër gi kenn ku nekk nga séddu ko sa walla kenn du mën a muñ saw ñaq te ko wax lu ban rek daal ne moo di yi nangam ak nangam bi feebar bi ñëwee sa yaram day daw lu nekk yéene nañ leen wax ju bon ju dul joj ji wax nañ ko moodu moodu yi dañoo bari tiitar dañoo def nangam mais bari tiitar xam ne ci yow abbulab xaalis rëngu la service ci boppam la nekk kon boo ko dee xool ba di ko wax wax ju bon da ngaa iñaan te moodu moodu bu ci fanaan si bala nga bu nit ñi yëgee na ñëw nga kër gi day fees del fayarteel bu su fa set ñaar nuyoo ñetti nuyoo sa morom mi bàyyi sa morom mi maam sa morom mi day ñëpp kenn ku nekk bu dikkee soxlaa ko fi indi bu dikkee la muy njëkk a def wokku ndong su mi daal la ca bit ci biti di la war warmaal boo ko toogloo ci lal bi du ci nangoo toog donte mat na la bàyyi bu wokkee ndong bu jàmmantee tuuti daal lay wax ne la man kat nangama indi na dégg na ñëw nga sama miir ba dafa daanu au ma lu ma yóbbu kër ga nga làmb la nga yor jox ko te bu génnee daat ne ah doomi ram ji bu ma xamoon ne lii doo nga la may jox du ma dem sa bopp ngay lor waaye loroo ko sa bopp ngay xas waaye xasoo ko ndax yaa ko soxlaal te soxlaalu la kon moodu moodu li ñuy faj buumi gàcce yi ci biir Sénégal Sénégal gépp wër ko ba mu daj foofu moodu mën a muudu woo bu fa amul woon àddina tukki ñaata nit ngay gis bu ab dëkk ñun dëkk bi ay moodu moodoo ko dëkk ñoo fa taxawal hôpital bee moodu moodu yi ñoo fi def jàkka jee moodu moodu yi ñoo def wàllu social di dimbali ñii moodu moodu loxo ma nga ca mbay ma léeg-léeg nit woo ko fii ne ko jiwu mu jëndu jiwu dem jox ko léeg-léeg nit di ko taxaw fii lépp la xaalis wax la wax ju tooy xëpp nga jox ko ko mu xëy xëy xëy war la léeg-léeg nga siñanteeg nit jëndanteeg moom ab pàkk mu xëy war la léeg-léeg nga jaay nit oto mu xëy war la loolu lépp dañoo defee ne moodu moodu bi nga koy def waaye seen bopp doon ngeen di lor na leen wóor na moodu moodu secteur la boo xam ne fii képp ku ci dugg xamal na yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci ndimbalal yàlla te ñu baree bare dañuy dem ba di leen xas jigéen ñi di leen nax te naxu naxuñu naxu naxu leen muudu moodu yi de seen bopp ngeen di nax de ndax ñaqu jàmbur woo xamul fu ñu ko bootee ak xamoo nu mu ko amee nga fexe ba nax ko fen ko ba lekk ko dem defe na da nga ko reesal boo léegee da nga gis virus bu la daal boo xam ne si doo xam foo koy waxee ci àddina ñaata moodu muudu nga gis fii ay jigéen tere ne leen def leen jëf ju bon ju nekk ñu def leen lekk seeni million falang leen wax boo boole génne di yàq seenub der buñ ne sida ñu ne moodu moodu yi buñ ne njaaloo ñu ne moodu moodu yi bu buñ ne dof ñu ne moodu moodu yi lu bon lu ñu wax ne moo moodu moodu yi moo moodu moodu yee ko baax senegal bu du woon moodu moodu yi àddina tukki tey jii de tey ku tëddoon tey sa néeg yéen ñi may déglu yéen ñëpp ku ngeen ku leen neex partagé leen koy déwoo ku toog ba sa bët xonq ak nu mu sa xel du dem ci kenn ku dul gaawal wal ma diw surtout communication whatsapp yi wokaal bi fii woo direct yi fii xamoo heure boo koy woo xamul heure boo ko dul woo xamoo am na ko xamul amul sa yoon nekku ci yow daal wooteel rek te foo ko woo du tas sa yaakaar fu mu këppee dana la lijjanti te mën a dimbali ci wàllu social ndax ñii nga xamante ne si ñibbi woon nañ senegal ci corona bi te takk fa ay juróomi weer juróom benn weer am na ci ñoo xam ne si sax ba fi na ña nga fa te manque ay moyens leen fi indi te yàlla dana leen indi ci jàmm waaye gis naa fii ñoo xamee ne ki nii fii lañ sacrifié dagg fi lu mat ñetti biyee ñeenti biyee daggal ko ñoo xam ne si ci seen xaalis lañ leen daggal xol boobu kan moo ko am kenn amu ko commerçant ya nekk ci réew ma sax nga xamante ne si tey lu ñuy def ci dëkk ba wala lu ñuy def ci réew ma dañ ci ci ci wàllu wàllu wàllu privé dañ ci fas seen loxo boo waxee ñu ne wax leen ko moodu moodu yi moodu moodu yi daal di yëkkati seen i dajaloo dajale seen i déem ak seen i daxaar dem satisfaire lool moo xam hôpital bu ñu tabax la moo xam jàkka ju ñu tabax la moo xam lu ñuy laajal la moo xam màggal gu ñu taxaw la amul lenn loo xam ne si bu ci moodu moodu yi génne lañ yor la ca des dana bari te ñëpp ñoom lañ yaakaar daw jëm si leen kilifa gu jóg boo nee destination boo mën a jël ci destination yooyu muur yee doo nga la yëkkati te boo fa demee yóbbu fa diine jàngal leen diine taxul boo fa demee ci ay kër ngay topp ay région ngay topp kenn par kenn ñu lay jël si boo dikkee wàcc seen lal jox la la gën a baax nga di ko lekk te duñ la xatal mukk duñ la soññ mukk ci la sëñ bi jógal dem feneen te booy jógee keneen di dikk te nañ ko defante ak yow lañ koy def keneen kooku ku génn xas leen xamoo fa ngay teg sa bopp saydul xaw mi xaadimahum sayyidul xawmi xaadimuhum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo koy wax sangob ki nga xamante ne sii mooy mbindeef yi mooy kan du borom bu mu rafet du boromuk juddu mooy ki nga xamante ne sii moo lay liggéeyal koo xam ne sii na xamoo fu ko ndeyam bootee nga yaakaar ko ñëw ci moom mu yëkkati alal judul jeex jox la nga dem di tabaxi étage yaa xam loo xam def ko ci kooka lañ walaf njaay naan bu ñuy gubali mbaam bu tan gone woon tànn ca waroon a ëpp say kon ñooñu ci boppam sax waruñoo taxaw di seetaan ñi nga xamante ne si ñooy taxaw di wax loolu ndax bari na ci kilifa yooyu ku ci xam Europe muudu muudu yee tax nga di ko xam jikkoo fi rek ci sa yi ci ci ci sa connaissance bopp yoo xam ne si duñ communauté Sénégal te boo dikkee ci kër yi ngay dal ci dayre lañ la yóbbu kon ñu xam nañ waloroo ñaata dayre nga gis yëpp ñu naan dayre sangam jébbale nañ nangam jumaa jee la ca lañ ca def lépp xalifa bu fi jaar la nga fa def muudu muudu yi dañ ca am cër boo xam ne si tey kenn amu ko ba ci hôpital yee fa nekk muy mët la bul fa sëy ni bee ak dispensaire ya fa nekk ak secteur ya fa nekk ak lu baax lañ fay def lépp lu ñuy laaj moodu moodu it ñoom ñoo ci jël pee ñii ku leen taxaw di leen xas moo nga taxaw di xas sahabatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi ñoo yem moodu moodu bu toogee fanweeri at amul kër gu baax lu ko ko teg wala social moo ko ko teg dimbalee looloo tax mënuñu ko am mais du seenug yëfus moodu moodu mooy teg tànkam ci avion l'âge de vingt ans di ko ci teg ba l'âge de soixante cinq te du tàyyi mukk ndare du dafa am ku ko mën a aw ca loola bu mën a continuer lu baax la mu doon def kooku ku koy xas foo koy teg koo xam ne sii daal boo waxoon ab saaba yëkkati ko wax ko fi loo ko wër ta wax mu wër na wax nga loo wër ta wax tàngaaj mën na la caa fekk jàppal ne moodu wax ko ko te jotee woog moom dara jàppal ne kaddu lu la nga doon tiit ci saaba ba da nga ko am ci kii jàppal ne képp ko am sa waajur wax loo ko wër te xam ne lu bon dana la ca fekk wala sañsoo jàppal ne boo ko waxee wax sab sëriñ ko wax wala nga wax ko njabootu sëñ Tuubaa wala nga wax ko kilifa gu ñuy warmaal loola ca mën a boo ko waxee moodu loolu daan la fa fekk kon loolu mooy li nga xamante ne sii na ko nit ñi di bàyyi xel moodu moodu yi kenn mënta mucc ci ñoom kenn ku mën a taxaw yëkkati sa loxo na musuma lekk xaalisu moodu moodu amul yàgg nañoo dog buumi gàcce ba tey ki ñëw démb ak ki ñëw tayee ci yem ki ñëw daaw ak ki ñëw ren a ci yem ñoom ñëpp ñoo bokk benn benn objectif ku ñëw la ngay xante woo rek mooy naa fexe ba am kër naa fexe ba def nangam te ku la woo téléphone doo ko delloo taxaw mu ne la nangam nga taxaw xamoo dëgg la xamoo ay fen la nga yëkkati lépp satisfaire ko kon na ngeen xam ne yàllaa leen ormal yàllaa leen sécuriser ni mu sécuriser weñ bu dugg ci bitel bu ko weñ ja tiimoon di ko cofit duñ ko jot mukk seeni sàll lay dagg kon na ngeen xam ne lii lu metti la ndax juróom-benni at ñetti at ñeenti at nga gis kook day dem ba ñàkk ci kayitam bëgg ne du ma dem Sénégal mukk te amatumay kayit mën na fee fukki at mën na ko bañ a am am na ñañ fii lañ dox ba faatu fi am ñañ liggéey nañ ba tëdd ci hôpital yi lépp gi satisfaire seenu njaboot yàlla dana seetaan kooku ñu taxaw di ko wax lu ñu ko wërte wax nga di ko ci bàyyi la ñuy am dañ koy gën a am te secteur la boobu ku ci sóobu rek xamal na sa àjjana taxaw na sa àjjana taxaw na ndax li ñuy satisfaire moo tax kenn ku fi dikk di fas say loxo di tëdd gisuma ko wala koo xam ne si da ngay am alal te fajoo ci soxla amul gisuma ko te soxla sañuy faj Sénégal ni lañ koy defee fii ci dayri yi nii lañ koy defante fii ci seen biir nii lañ ciy dimbalante nii lañ ciy jàppale kooku ku leen di waxal lu bon xamal ne xamoo li ngay wax te yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel ku leen yéene lu bon it yàlla dana ko këpp ci sa kaw ndax innama ahmalu bi niyati wa innama li kulli imriin ma nawa kon ñi ngi taxaw foofu di nuyu ñi nga xam ne ñooy bokki Afrique ci deuxième partie bi di nuyu waa Sénégal waa Mali waa Burkina Faso waa Guinée Conakry Guinée Bissau Guinée Équatoriale ak Nigéria ak Niger ak Tchad ak euh, Soudan ak South Africa ak Éthiopie ak Kenya ak Gabon ak Côte d'Ivoire ak euh, Angola ak Zambie Tanzanie ak euh, euh, Botswana ak madagaska ak Mozambique Angola ak Cameroun ak Togo ak Zaïre ñi ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci continant yépp di déglu tey jii moom numéro bi wax dëgg yàlla mënuma koo ñàkk a jagleel immigré yi ndax ci seen biir laa nekk te lépp lu ma mas a wax muy nuru ay xaste wala safaan na ngeen xam ne maa ngi yéen ko bokk kon jubliwuñ ci xastaate ak yeete la ak soññe ak jajuwaay waaye moodu moodu moom ñoo ña doon ànd ak yonent bi di xare ci ndigalal yonent bi daanaka mën naa ne ñoo bokk yoon wuñ jël ndax ñoom itamit xare bu mel noonu la def ci jihaad ci seen alal kon foofu moom la ñuy taxaw tey di jox beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf